excellent donc ah de passage Mounas Balde nuyu nañ ko bu baax a baax borom baxalu laxas yu baax yi ci ñun donc euh, mais est-ce gis ngeen cravate lune boo ah, non mais eh ba yokku na chaque jour may leen fortune bi daa yokk gëmoo leen. non gis nga cravate bi laa dem ba. cravate bi xam nga cravate bi. jarul sax 700 mille. non non non non non non non non c'est vrai non non non puis day bon d'accord non non attends attends non attends 14 février bi aussi. non def leen dànk def leen dànk. c'est que cravate bii da ngeen xamul lii mooy ban cravate. kii du cravatu ay crabat simple nii. kii cravate bii. Mhm. Euh, pour nga sol ko. Mm-hmm. il faut nga xam lan mooy solin. la moo tax yow nga sol ko. gis nga ni mu ko jëlee nii. xoolal li mu sol yëpp li mu ko booleel. cravate bi am na loo xam boo ko boolee rek nekk nga cuune. mais pourtant yàgg nañ gis Charles. Eh, non non non non non xoolal xam nga lan la gis nga yéen. <laughs> Charles dañ ko mos a gis mu sol cravate. ah arrêté ci la dëkk Charles musuma ngaa gis. cravate yow kii terrain la de. Eh, bu defee eh, sa xol seet. ma wanal Charles. ngir yàlla ngir yàlla ngir yàlla ngir yàlla. da ngay oh, nax noonu bëggul liggéeyut day bàyyi bouton yi ñëw fii non lin <laughs> boo nii nañ la <laughs> ci jàmm non lu neex mais cravate bi fa la jógee lu neex la ci na euh, alors mais ça c'est du c'est du Pierre Cardin d'accord xam nga Pierre Cardin déedéet xaw ma ko euh, waaw Pierre daa ji Pierre Pierre Pierre ah, Cardin Pierre euh, Cardin lan nga yaakaar moom Pierre Cardin Pierre Cardin. laa ah, dégg Pierre euh, d'accord Pierre Cardin waaw. waaw waaw kii na de c'est c'est pas mal ah. c'est c'est yàgg na mais dafa dafa kii cher na de. super classe man xam naa ne dafa cher. moo tax ma tudd ko cher na mais mais ça va il fallait Cheikh moo xam li muy wax. no non euh, man mi ko gis tudd ko maa xam. no mais li ma arrêté nag de. xam nga dafa am lu mu <laughs> wax. boole li mu ko booleel bi mu wax. waaw loolu la waaw. su ko boolewul nag leneen rek daanu na. non non boo ko boolewul nag beneen couleur lu dul li mu def nii. Ah. daanu nga ci soli mën naa la ko wax. ok Mbassa Mbassa gin tey. mën nañ dem inspiration la il le faut ñu def actualité dëgg la. ñu dinaa socc ñu dinaa socc plateau bi man. yow lii Charles actualité waay te balaa may dee. kii may na la générique actualité. oui oui oui ñu <laughs> dindi lii. c'est pas la peine. oui. c'est trop tard. daf la bëgg nag daf la bëgg. vaut mieux vaut mieux tard que jamais waaw. vaut mieux tard que jamais waaw mi ngi noonu lan laa waxati lan laa def xool ko muy xool <laughs> Aïssa yow lan la yow luy sa problème <laughs> c'est vrai. da nga laa bëgg. je t'aime bien. Euh, maa ngi raw barke Sëñ Tuubaa. vaut mieux tard que jamais ndeysaan. bah oui. j'ai j'ai quelques petits maux de tête quand même. ah ça ah, se voit ça se voit. mais dina arrêté léegi nii. mais man dañu ma waxoon bu ma dara jotee bu ma ko wax xaaral ma ñëw jox la càngat càngat yi ma la wutoon. mais fii partie il faut partie des lunettes. parce que léegi. Euh, boo yeewoon ni écran yi. xam nga écran yi tout ça. lampe yi. mais ça va feeñul quand même. non non feeñul waaw mais dama bëgg nga yëngatu tuuti ah. Ah, mais si biir actualité sax xam naa dina ñëw incha allah. Ah, donc Walf Quotidien luñ boobu. maa ngi ciy gis ku ma gëj a gis. nii ci à la une de Walf Quotidien. loo gëj a gis vraiment Walf Quotidien ñu ngi liggéey Euh, suppression des villes le PS se démarque de Macky maa ngi gis nataalu euh, Aminata Tall ak euh, président maam euh, Macky Sall Aminata Tall laa gëj gis moo tax may wax que ah, ah, maa ngi ci gis ku ah, may gëj a gis mi ngi nii le PS se démarque de Macky. Aminata Mbengue Ndiaye. Euh, dama jum Aminata Mbengue Ndiaye. ba oui parce que xam nga moom damaa sonal Aminata Tall nag <laughs> dama ko sonal xam nga eh, war a dem retraite définitivement. <laughs> ça fait xaw ma ban année la juddu cinquante xaw ma lan. Mhm. ça fait longtemps qu'elle est elle est pouvoir eh kii c'est Aminata Mbengue Ndiaye. Mhm. effectivement bon ben xam nga ni ñu defee photo bi nii c'est c'est pas mal parce que euh, ñi ngi wane euh, ni Aminata Mbengue Ndiaye moom mooy la tête inspiratrice collaboration euh, toujours continue avec le président Macky Sall euh, collaboration bi nga xam ne moom la Aminata Mbengue Ndiaye euh, jël wuutu ci ci Ousmane Tanor Dieng bi nga xam ne làkku na a a quelque temps c'est vrai que kii bi affaire wu ñu ngi waxatee suppression des villes bi PS se démarque mais pas c'est véritablement le PS qui se démarque mm. c'est une partie du PS surtout PS bu Rufisque au travers de son de son de son euh, de sa de son représentant mu tudd Abdou Karim Mbang il me semble mhm. moom moo ne euh, toute la coalition donc au niveau de cette commune de Rufisque d'accord uñu ak cette suppression là c'est vrai que fan yëpp ñu ngi ciy wax ci a euh, ville yooyu parce que Rufisque lu yàgg la parce que parce que parce que parce que y a beaucoup de choses qui se disent mais bon on verra bien mais en tout cas li am solo moom mooy tête inspiratrice bi nga xam ne moom moo nekk PS moom ne moom euh, c'est amu amu waxul ni d'accorduñu ak suppression des villes et je pense que même à la limite même si je ne peux pas être sûr à 100 pour cent je je crois que je je crois que le PS serait d'accord. Hmm. yaa ngi dégg euh, bon maintenant comme ça a été titré ici euh, je crois que c'est euh, euh, phrase d'attaque phrase d'attrait des lecteurs mais c'est d'une évidence que c'est pas le PS même à l'intérieur ñoom mm-hmm. seeni ñu ngi ni mm-hmm. c'est une précisément que c'est une frange du Parti socialiste donc euh, une toute mm. petite frange parce que Rufisque lu tuuti la Parti socialiste Parti socialiste a son maillage sur tout le territoire sénégalais mm-hmm. donc forcément c'est c'est évidence que c'est une toute petite partie comme l'impression ou même euh, euh, euh, comme intime conviction que finalement ou forcément le le Aminata Mbengue Ndiaye patron donc actuellement du Parti socialiste serait à mon avis en phase avec le président Macky Sall mm-hmm. parce que mënu ko te du da du ci le PS mm. pas, ne se démarque pas forcément euh, de, cette proposition du, président Macky qui serait la suppression des, villes. Mm-hmm. Mm-hmm. je dirais le contraire. Donc maintenant ça peut être une phrase d'attaque, d'attrait par rapport au lecteur, mm-hmm. mais heureusement qu'à l'intérieur de ce quotidien, mm -hmm. et euh, a été précisé que c'est juste une petite frange du Parti socialiste qui se trouve au niveau de Rufisque et qui est dirigée euh, par Abdou, Karim Bang. préciser que ci kaw euh, suppression wu Villiers euh, fi lay doon début éclatement diggante parti socialiste euh, pro Macky ak ak ak ak ak ak coalition Macky 2012 mmh. parce que tout simplement mmh. suppression wu ville bi dafa nekk mmh. benn mbir bu stratégique ci parti socialiste parce que parti socialiste aussi quoi qu'on puisse dire lii rek a ko dese pour mu wane suprématie parce que tey ku xam ville de Dakar xam ville de Rufisque xam yenn ville yi nga xam ne ñoo nekk ci biir Sénégal parti socialiste bees la bokk mhm. Mhm. nga jël ci yenn exemple kon ñoom benn kaddu rek la amoon tey pour dëggal seen bopp ni kat d'accord ñu suppression bi mooy fexe ba ville yi resté mais bu fekkente ne tey dañu d'accord Macky Sall vraiment nañu signé daal la mort vraiment naturelle du parti social wala la dissolution du parti social mais je crois que xam nga il quelque temps j'avais dit que Aminata Aminata dina opposé wu de enfin ça m'étonnerait parce que je reste patronne du HCCT yaa ngi dégg et Aminata Mbengue Ndiaye pourrait même avoir envie d'une euh, euh éventuelle reconduction euh, pour un autre mandat si toutefois euh, Macky euh, serait encore promu éventuellement président de la République dans le dans l'hypothèse d'un troisième mandat <laughs> donc yooyu yëpp ce sont des calculs qui se font et et je je pense que Aminata Mbengue Ndiaye serait toujours parce qu'elle n'a pas d'ambition euh, euh, présidentielle euh, amul foofu am donc dina ànd ak moom Aliou Sow ci Macky Sall li mu bëgg damay suivre sa logique mhm. sa logique ku démb mhm. xam nga loolu dafa am solo nit ñuy wax nga kiyaat yow Euh, defoon nga fi benn analyse boo xam ne le parti socialiste dans son ensemble. Okay. sur le plan mondial. kii euh, jeex na euh, li des rek ay mhm. poche moo mhm. des. Mhm. Ah? léegi fu mu nekk nii PS bu fekkee ne man man amoon mon fi PS bu buggee maanaam dundaat dundaat. faw mu def benn affaire démarqué wu ci régime bi. parce que démarqué premier euh, act bu mu war a njëkk a posé mooy ñoom ñu ñoom maanaam ñu am candidat à la présidentielle de 2024 mm-hmm. ak candidat euh, maanaam seen candidat bopp législative ak candidat euh, kii xawma ci mm-hmm. élection yi man defe naa ne loolu moom mooy kii et puis tamit ci affaire kii c'est vrai kii yi parce que Euh, euh, euh, mairie Dakar mairie Tëngéej yooyu yëpp. gars yi wane ne comme ni ko ay ci waxee ñoom ñu naan sinon yow li nga wax. Mhm. moom mooy am. ñii bu fekkee ne Aminata Mbengue Ndiaye dafa bëgg a topp ci. Mhm. maanaam prébende yeeg avantage yooyu yëpp topp ko. c'est tuer le parti socialiste. mais oui mais je continue à persister pour dire que le parti socialiste. Euh, euh, euh, va mourir de sa plus belle mort c'est c'est c'est d'une évidence quoi parti socialiste ci àdduna bi sax moo existé tout pratiquement ñoom ñooy ils ont tendance à se déprécier au fur et à mesure du temps ce n'est plus possible avec le parti socialiste il vous auriez des anciens socialistes ou des néo-socialistes etc mais mais dootul tuddati noonu c'est fini quoi c'est fini àdduna bi moom moo am ay mutations yoo xam ne euh, ça va passer à autre chose je vous assure d'une chose le parti socialiste Aminata Mbengue Ndiaye le sait elle va passer et puis et puis surtout il y aura encore un petit parti socialiste qui va va être dirigé par quelqu'un d'autre dans 5 ans, dans 10 ans, et puis mais qui ne pourra pas être, qui sera inexistant dans l'échiquier politique sénégalais. gisoon ne également benn mhm. révolte mën na ci côté euh, euh, parce que sëñ Mbaye wu génn xëccaat Khalifa Sall non non xëccaat ses frères du du ko mën parce que sëñ Mbaye Thiam amul amul doole aussi sëñ Mbaye Thiam ki ko mayoon doole euh, euh, euh, yàlla yàlla jëlee na ko fii mm-hmm. Tanor moo ko doon may doole parce que soit sans doute c'était un garçon ou ça l'est toujours mm-hmm. extrêmement fidèle vis-à-vis de Tanor Dieng donc malgré ses compétences ou pas j'en sais rien mais en tout cas il avait la confiance d'Ousmane Tanor Dieng qui n'est plus là donc yeneen état d'esprit mooy ñëw maintenant c'est Aminata Mbengue Ndiaye parce que si Thiam la Serigne Mbaye Thiam a accepté bu nangoo ànd euh, Aminata Mbengue Ndiaye nekk nekk nekk nekk remplacé Ousmane Tanor Dieng que moom dafa xam ni veuve Tanor la woon donc moom euh, nekk na ko te euh, day xalaat moom Serigne Mbaye Thiam éventuellement la la mais problème moom mooy il n'a pas la cote Serigne Mbaye Thiam il est peut gentil tout ce que vous voulez mais amul cote de popularité bu ko mën permettre mu jël ko Serigne Mbaye Thiam bu demoon ak Barthélemy Diaz euh, di xeex pour parti socialiste Barthélemy Diaz da koy da koy wala Malick Noël Seck euh, mais par contre Khalifa Sall bu fekkoon moo fi nekk ba tey au niveau du parti socialiste peut-être dina ko téyewaat mais au travers nekk euh, jeex na et puis Khalifa va avoir il va aller à la retraite les autres qui sont derrière vont essayer de se faire une coalition qui vont appeler authentique tout ce que vous voulez parti socialiste je comme Djibo Ka a avec euh, euh, xaw ma lan renouveau xam nga yooyu noonu c'est c'est c'est fini di même tête yi di nga leen gis mais mais ci yeneen tour kuréel Mm-hmm. mais mais dootul amati quoi c'est fini même en France regardez parce que lii yëpp ñuy wax Senghor machin héritage Senghor maa ngi dégg Mbaye nga di wax mais héritage boobu yëpp kan la kan kan moo kan la Senghor fu mu ko jëlee ci tubaab mm-hmm. yaa ngi dégg mais tubaab yi na c'est fini ay ñoom euh, euh, euh, l'ancienne SFIO le le la section française de l'internationale ouvrière moo jékki ñu nekk socialiste comme LD MPT après LD LD Debout yooyu jeex ana LD est-ce que déggati ngeen ko jeex na c'est mm-hmm. fini la ñu a bi cim rek yooyu mais c'est fini Euh, PS jeex na amut dootu am sens en France ça n'existe plus il aura ay la gauche va peut revenir au pouvoir mm-hmm. mais pas forcément au nom du parti socialiste mm-hmm. ce n'est plus possible tur bi moo jeex quoi d'accord ayca dañuy daal di daw on est dans un monde euh, équilibré quand même parce que déjà moom mi nekk ci laas sax mi ngi à la mm-hmm. une de Walf Quotidien mi ngi source euh, a di maître Doudou Ndoye il est partout ah tey ci quotidien boo jël rek ma nga fa alors débat sur le troisième mandat au Sénégal la candidature de Macky alors moom nee na tant que cette constitution n'est pas modifiée Macky Sall peut être cent fois candidat. ba voilà. Mmh. eh ben oui. et ça rejoint. ah li nga doon wax ca mais oui mais oui moi le petit juriste d'entreprise euh, qui sait un petit peu lire du français a eu à comprendre quand même même si au départ j'avais un doute par rapport à que ce nul là et cetera mais ce nul qui ne ah c'est compliqué. parce que xam nga lu tax parce que on n'arrête pas de réfléchir. Hmm. dañuy xalaat di xalaat. mais est-ce que on a véritablement changé parce que entre changer une constitution ou changer la constitution il y a une différence mm-hmm. dégg ngeen mm-hmm. changer une constitution une constitution et changer la constitution, et changer la constitution c'est différent mm-hmm. constitution 2016 bi elle a juste été changée dañ dañ ko modifier parce qu'il a changé dans le sens modifier la constitution quand on change de constitution ordre juridique bi génne nañ ko teg nañ ko fële mais problème moom mooy constitution bi bii nii changé wuñ ko dañ ko dañ ko modifier moo tax ma ne changer de constitution mooy jël bi jël ko teg ko fële changer la constitution c'est carrément modifier une constitution mm-hmm. mais bii dañ ko modifier parce que man aussi ah je suis embêté c'est pourquoi parce que parce que je ne sais plus finalement parce que quand bu amul une disposition est-ce que quand on change quand on change mooy changer une constitution on a besoin d'une disposition transitoire dégg ngeen li ma wax la disposition transitoire ba nga xam ne moom mooy préciser li nga xam ne la ñu bëgg mu leer moom mooy kële yow sa mandat bu njëkk ba bokk na ci loolu moo doon disposition transitoire bi waroon dugg ci constitution bu bees bi te nekku ci mhm. dégg ngeen bu baax. moo moo moo waroon mën a wax boobu baat yooyu moo waroon leeral ni yow Macky Sall yow Macky Sall yow yow yow sa mandat bi li ñu modifié nii dañ si yokkaale cette disposition là ne ko mandat bi le ñun boolee nañ ko ci biir. Mm-hmm. comme ça mu leer mais defuñu ko ci. mais léegi quand on change de constitution est-ce que c'est nécessaire de changer de de de de de d'intégrer une disposition transitoire immédiatement mo xam nga. c'est fou oh c'est c'est c'est pas clair mais man si sama gis-gis honnêtement du dara quoi xam nga aussi parce que c'est pas évident parce que Sénégal yi ñëw taxaw ne la yow da ngay da ngay da ngay da ngay da nga bëgg a pousse gars yi pour pour Macky Sall am un troisième mandat yooyu xam nga loolu waxu dof la ku may wax loolu. ah mm, c'est pas ça. on est en train de réfléchir pour que ma mën a prévenir sénégalais man mii sama bopp des fois pour ma prévenir moi-même vous voyez bien des fois je suis dans le doute. Mm-hmm. parce que je reste persuadé à ce titre là gis nga Doudou Doudou c'est un monsieur qui m'inspire. Mm-hmm. un grand privatiste. Mm-hmm. Doudou Ndoye mi. il a été ministre moom moo créé bi moom moo ko créé moo fi nekkoon ministre de la justice moment boobu. nekkoon na fi candidat sax. nekkoon na fi candidat il est extrêmement bon surtout en droit privé. Mm-hmm. ce monsieur il sait lire le droit. dafa xaw a nduroog El Hadj Diouf ci benn kër daf ko gën a frigvole rek. Mm-hmm. parce que El Hadj Diouf il lit bien la le truc mm-hmm. da nga dégg muy wax des fois bi baax na quoi dafa xaw a dofe rek. <laughs> yaa ngi dégg mais mais mais baax na non c' est vrai ah billaay des dégg nit mu wax da xam ne kii li muy wax ni kii la Doudou Ndoye quand il il dit exactement la même chose que je. xoolal lii il dit la même chose que j'avais que li ma waxoon loolu di déposer assemblée nationale Euh, au conseil constitutionnel wala yooyu mm-hmm. eh euh, problème du am gars yi koy accepté te fàttali ngeen ni man waxoon naa leen fi nii Macky mus na laaj conseil constitutionnel ndax sama mandat bi bokk ci waa conseil constitutionnel boobu est que ëllëg bu ñëwaatee mm-hmm. Macky pose jël kayitam déposé dina ko wax non non non bi mooy sa deuxième mandat mënu ko ko wax parce que njëkk na ko wax d'abord ñu yow sa mandat bi la bokkul ci mm-hmm. donc conseil constitutionnel ñi ah ni le conseil constitutionnel ni la chambre administrative de la cour suprême ne s'opposeront à ce qu'il exerce un troisième mandat euh, quand il parle quand lui parle là quand il euh, bi muy bi muy bi muy bi muy def droit moi j'étais tout mhm. n'a la même aura que moi parce que moom moom la yàgg am na fu mu jaar jaar ak yooyu bu mhm. waxee Sénégal yëpp dañ koy bind mais ça je l'ai déjà dit mhm. c'est d'une évidence donc je crois que euh, je crois ñu pare psychologiquement parce que ya leen rek moo nekk au-dessus de la constitution xam ngeen lan la mooy le peuple sénégalais. en mm-hmm. dernier ressort. mais qu'est-ce qu'il va faire day dem taxaw. Mm-hmm. mu ne ah d'accord ok très bien du danga ne yow la woon. Mm-hmm. yow yaa ñu waxoon sa baat léegi. léegi nee nga constitution bi tere nee ma am naa droit te yow yaa waxoon. yow yaa waxoon yow yaa wax waxeet yow léegi. yow baax na xaaral ba nga ñëw xaaral ba ñu ñëw. bu ñu demee nag ca jour ba ca ca la qui décide pour notre constitution qui a un esprit pour notre constitution parce que peuple sénégalais ci xelam Macky Sall mooy deuxième mandat am mhm. parce que Macky Sall non seulement même jarul sax ñuy lire constitution ñoom peuple sénégalais bi c'est li Macky waxoon rek la ñu dégg mhm. léegi nag loolu nañ ko faj mhm. nañ ko faj en temps utile bés bu jotee ñu ne leen écoute waaw d' accord nee nga ay seen kayit yooyu nee ngeen ma euh, kayit bi bind na ko nee nee na am nga droit d' accord ok xam nga kayit boobu yéen yaa leen ko bind yaa leen ko defar ba pour pour defar seen bopp d' waaye ñun peuple sénégalais ñu ngi lay xaar mm. Mm. bis dina jot ñun bu ñu duggee nañ xam li ñu def yaa ñu ko waxoon mm. ñun ngay yàpp ñun ngay jéem a fontoo ñun ngay kii euh, euh, pamti pamte d' accord yow Macky Sall ñëwal bu ñëwee jour boobu eh bien war def li ñu war def. Mhm. Mhm. jeex na tàkk jarul mais au moins man sama liggéey mooy ma préparer leen maintenant. à partir de dorénavant ñu xam comme ça psychologiquement ils sont préparés ndax li may wax ni. Mhm. ba ma ko waxee pendant trois ans. dañ ne un jour mais diw daan na ko soob daan na ko wax wax wax na ko ba soob. xam nañ ko tu n'as fait fait que lire le droit mais ce droit là mais le droit nit moo koy defar te nit nu ko neex la koy defee. effectivement mais oui mais aussi ñu xam ki ñuy voté. mu ñu leeral leen liggéey bi may def nii ñoom.